la jox sa wàccuwaay di la dalal jàmm fii ci biir hémicycle bi monsieur du travail maa ngi lay nuyu bu baax a baax cher collègues maa ngi lay nuyu ku ci nekk ma lay jox sa wàccuwaay tey mën naa ne sama collègue yi féete boor bi yërmande gu metti laa am ci ñoom ndax boo gisee ni ñu toogee nii na tekk nga xam ne am nañu problème pour argumenter projet de loi bii ñu leen jox ndaxte day ndaxte même ñoom ñoom ci ñoom la ñu bokk projet de loi bi bañ leen koy jox consulté wuñ leen waxuñu leen ngir lan lañ ci jublu ci presse bi lañu lañ ko yëgee comme ñun kon moo loo tax ñu am problème pour défendre ko dañ leen di comprendre moo tax nag ñoom dëgg la rationalisation des dépense baax na torop ñun nangu nañ ko ndax ci suñu njiit la njëkkee le président Macky Sall ci moom la njëkkee ñun bañuñu ko mais au moment où on nous parle de rationalisation des dépenses ñu ñëw créer benn poste bu ñu naan au conseil au représentant <laughs> du président de la république pour caser fa benn clientèle politique jox ko seen benn allié mu dal ko cabinet jox ko voiture de fonction jox ko tamit ak ay nitam ak ñoom ñëpp pour ñu mën a doxal te boobu la ñuy wax ne Sénégal dafa soxla xaalis ba ñu nar tas ñaari institution yi pour def ko ci biir réew au moment bu bi ñuy wax rationalisation des dépenses ñi ngi gis suñu PM buy voyager avion présidentiel lay jël te ku ne xam na coût bi ci nekk aéroport bu mu taxaw sarge taxi ya mu fay fay ku ne xam na coût bi fan la toll ak personnel bi muy yóbbaale jël seen militant yëpp yàpp ko ci avion bi yóbbaale leen loolu lu tax waxuñu ci ku wax rationalisation des dépenses wax wàññi ñun xam nañ loolu mais nañu commencé d'abord ci ñoom ndax fonds politique yi ñoom dañu waxoon dafa xaraam te pourtant ñi ngi ciy dund ba léegi yi nekk présidence comme yi nekk primature mais ñun bañuñu voté projet de loi bi mais dañ la koy joxaat monsieur le ministre ñu dem ñu defaraat ko ba mu gën a baax ñu indi ñu dindi fonds politique yi ñu dugalaat ci loi boo xamante ne day criminaliser l'homosexualité ñu indi ko fii ñun ñu voté ko ñun bañuñu de ndax ñun askan bi moo ñu fi tax a toog ñun ñëwuñu pour bloquer kenn tey bala bala ñu ko doon xam tey yàlla bàyyi ñu fi ba ñu àgg ci votu budget pour luy doxal réew mi ndax ñun ay démocrate lañu te ñun réew mi ñoo ko jiite lu fi baax ñoo ko fi def kon duñu ko yàq budget ñu fi indi dinañ ko voté ndax ñun yareewuñ ñu noonu damay bañ nag ñu jóge fii ñu bëgg a gëmloo askan bi ne gis ngeen lu ñu indi ñu bloqué ko il faut ñu tas assemblée bi ndax ñu mën a satisfaire seen ay besoins déedéet ñun bloqué wuñu kenn yareewuñ ñu noonu président Macky Sall dafa wax ak ñun njabootam lépp lu ñu indi pour sénégalais yi mu jëm ci ñoom muy lu baax bu leen ko bloqué voté leen ko kon gàcce ngalaama président Macky Sall bu ko neexoon bloqué malheureusement nag pour nous les sénégalais ndax dañu fal ñoo xam ne ay cuune lañu xamuñu fu ñuy teg seen tànk looloo ñu waral guute gi yëpp ñu dugg ci investisseurs yëpp daw nañu génn réew mi ndax ñu ngi leen di xoqatal di leen tiital ndax réew boo yaakaaree ni ci defar ko ci ay taxe nga ko yaakaar ci ay impôt ci ay xuppaate ay tiitalaate ak bëgg a museler la presse loolu duñu ko nangu kon yaakaar naa ne war nañoo xool. nan la ñuy doxalee ñun ñi ñu doon xaar ñu indil ñu PM mu ñëw def déclaration de politique générale ndax mu xam fan la jëmee askan bi ndax dafa taxawoon nag ci askan bi wax ak ñoom lu bari dëgg la lii ci campagne ci promesse électorale la bokk dëgg la nangu nañu mais promesse électorale yi ci nekkoon dafa bari ndax dañu waxoon président du du bokk ci conseil supérieur de la magistrature te ma nga toog di siéger foofu loolu ci ci ci la bokkoon ci promesse électorale yi dañu waxoon. p euh, euh, p <laughs> dañ ñu waxoon fonds politique yi dañ koy supprimer wax naa ko te loolu tamit ci la bokkoon dañ ñu waxoon tamit séparation des pouvoirs ak tamit dañ ñu waxoon ne justice bi ci ñuy instrumentaliser dañ koy bàyyi mais ñun toog nañ en public ñu dégg PM ne ministre de la justice da ko envoyé message ne ko kii de dégg naa ci sa njaboot la bokk lan laa ciy def mu ne ko defal sa liggéey ñun foofu lañu leen doon xaar ñu réformer justice ba ku ci nekk mën a dem ak sa indépendance bañ xaar ñu lay jox ordre pour nga doxal ñun sénégalais ñun foofu lañ leen doon xaar ñun foofu lañ doon xaar mooy comme li ma la waxoon rek monsieur le ministre ministre ñëw assemblée indi projet de loi ñu rejeté ko mësta am te ci yow mii la nar a xëyee waxoon naa la ko commission dina la ko waxaat lenn rek ma ci metti li ngay doomu Thiès maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp Mame Diarra Fam suivi de Ibrahima Diop